jokko njël bàkk ba jub na olof day faral di wax ne lu coow bëri bëri bëri borom wax ji su génnee mbir mi jeex Fambaye Mbow génn na ci àndam indi leeral ci feebaram bi nga xam ne ah, boobu ba léegi nit ñaa ngi koy jaaba jombe naan Fambaye Mbow wër naam wërul ah, Fambaye Mbow démb génn na foofu suñu naataango Seneweb indi ay leeral bañ ko dékkee micro Fambaye lu mu jot a xam ne mooy ah, sonn naa taay naa feebar bi sonal na ma lool maa ngi ñaan sénégalais yi ma waaye ca beneen wàlla ba bañ ko laajee Fambaye la na ma te na lépp lu mu war moom 15 millions yi la Wally digoon mbaa jox na la ko mu ne waaw Wally kat man mii sax yëkkati millions yi pour jox ma ko ma ko Wally tee ko foofu ndax li may faj daa romb 15 millions maanaam téeméeri millions la ma ko foofu ba mbiri su motee rek ñu xool na ma li nga xam ne mooy dund waaye taxaw na ma saa su nekk mu may laaj Fambaye yaa ngi tane rek yow jógal ak jàmm ndax yow sama rakk nga te dama laa jàpp fu sori laa la Maodo Amina ah, dafetina jollare bu rafet ñu waxoota dee waali daal dimbali na ki nga xam ne mooy Fambaye Mbaw ah, Fambaye Mbaw nag ca beneen wàlla ba gisoon na ñu ngi ñu ne ab feebar feebaram boobu amoon na koo xam ne taxawoon na ah, pour dimbale ko mu faju muy ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diop Khass indi woon na nag coow ci vidéo boobu nga xam ne jotoon na ko fi def foofee ca màggalum daaru bi nga xam ne dañ ko doon waajal Fambaye nag jot na cee indi ay leeral nee na vidéo boobu képp daf ko defoon rek ndax ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diop Khass moo ko woowoon na ko Fambaye defoon na ab vidéo ci li nga xam ne mooy màggal daaru bi moom nag boobu ba léegi nag tanawul benn yoon moom nag nee na ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diop Khass da doon déplacé wax dëgg fa neex yàlla di ñëw di ko ñaanal pour que mu wër waaye booba léegi nag gisugul résultat feebar nag moom ak borom ku sonn wax waaye nag mu ngay wax ci beneen wala ba tey rek ne bu ko dimbalee mu jël waaye ba tey nag waxul lenn loo xam ne lu bon la ci ay leeral daal ne moom ah, gisul résultat soñoon sénégalais dimbale ko génnee ko fi nga xam ne mooy askan suñu gaal ah, yóbbu ko bitim réew ca bitim réew boobu noonu sax Fambaye Mbow ci ay biir waxam ngi wax ne am moo ko def mooy Adamo Adamo nag bu yoon xoromul waaye lu baax la jun def ko ci kaw Fane Mbaye Mbow moom ah, ah, moom moo ko dimbale woon def ko te yàlla tax si benn magam boo xam ne ah, nekk na Italie te am na foofu kayit di liggéey ci nguur gi si la ko wax na ko nag nañ jóg dimbale ki nga xam ne mooy Fane Mbaye Mbow ñoom nag si lañ dem lijjanti seen i papier am ab hôpital bu ko mën a faj gratuite foofee ca Italie léegi nag li ci des rek mooy li nga xam ne mooy état ndax mu faju ndax ku gis Fane Mbaye xam ne sonn na ndax mu ngay ump saa su nekk du yuuxu ah, te lii dafa métti ci jigéen dem na sa banaan ndeysaan man damay wét ci néeg bi aw ma télé lenn mu nekk la jot na ko def mu tuddee ko natural love mu nekk clip bu rafet ñëpp di ko waxtaane ah, rawatina qualité image bi moom ñëpp la ñuy fu mu nii Wally nag xamal na ko man moom ah, moom daf ma jaral lu nekk te clip jaral na ma lu nekk su laajoon ay millions tamit dama ko ci def te waali tamit ñu ngi koy laaj ci beneen wàlla ba social yi nga xam ne yaa ngi koy jot a def waali mu ne man lii dama kaa doon te lii rek moom war ndax soo amee da nga war a dimbale jaamu yàlla waaw góor waali ba beneen wàlla ñu naan ko waali dégg nañ yaa ngi dimbale foofu ci Sudan benn nit boo xam ne moom day dimbale ñi ñàkk doole nga def benn partenariat ak moom di dimbale nit ñi mu ne waaw kooku sama jigéen la te ñun ñaar ñoo bokk gis-gis bokk xol moo tax ma ciy participer waali nag mu ngi ñaan ak ñenn ñi nga xam ne dañuy toogaanu buntu këram ndax na ku siiw sonn te gis nañ ne saa su nekk nit ñi dañuy toogaanu buntu kër waali balaa ko sekk di ko xaar suba ngoon ah, nee na ngeen dem foofe ci li nga xam ne moo nekk siège ba Ouest Foire am na bureau boo xam ne looloo ko tax a ñu ngay fay weer ay nit ñu fa nekk di fay location ba foofu weer ah, su ko defee bu ngeen amee ay soxla rek ngeen exposé ko foofu noonu ah, su yàlla defee ma bokk war kaa faj rek dinaa ko faj ak jàmm waaye nag mu ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy toogaanu buntu këram nañ ko dimbal ren ndax nag dafa am ay dëkkandoo te loolu tamit Mermoz moom ah, ah, ah, ñu koy toppee li nga xam ne mooy passeport français boobu ñu ne wax ne daf ko weccoo ki nga xam ne mooy Thierno Amadou Diallo si ñaari millions gis nañ ne nag coow lu bëri lool dem nañ sax ba tudd ci li nga xam ne mooy diwaanu waa jot nañ wax ne Thierno moomu nag dañ ko mosoon a jàpp ci mbir moomu indi ko fii ci Sénégal Sénégal moom moom ak avocat am lu ci mel ni maître Bamba Cissé ak ki nga xam ne ak maître Ciré Clédor Ly ak ñeneen ak lu ci mel ni Moussa Sarr ah, ndax moom mu ngi xam ne sax dina porté plainte ki nga xam ne nag moo nekk euh, Thierno Amadou Diallo mi nga xam ne moo ko dugal ci guute gi waaye tamit porté plainte ki nga xam ne mooy Dame Dieng euh, nekk borom site boobu di leeral net waaye moom nag ki nga xam euh, ndax nag ñoom dañoo jël li nga xam ne moo nekk image kilifa pëtëxal ko te amuñ ci benn ndigalu kilifa ndax kilifa tax na ba tax sax moom nee na plainte boobu nag mu ngi koy toppee maanaam collecte illicite et division des xam ne ne am nañ koo xam ne ñu ngi koy tudd ku siiw a a siiw fii ci Sénégal te ñu ngi xam ne wax waxu waa Walf Fadjri la ah, te ngi xam ne ne soo mootu kilifa moo jël vidéo boobu noonu lépp rek pour daaneel ki ne moo bokk foofee ca yaanaama doon activiste nekk koo xam a baax ci coowalu passeport diplomatique yooyu noonu ba tey ah, Sénégalais yi tamit ñu ngi samp ab laaj ne jot nañ leen tudd te ñu bokk ci mouvement présidentiel bi ah, ne kii alaaji jaaj kon ne moom moo leen dugaloon ne ñoom bokk nañ ci wàllum njuuj njaaj yooyu ñuy wax luy njig luy njaag ñoom la rek te lu ci am ba am mooy jàpp leen ne moom wàllum njuuj njaaj passeport diplomatique Sénégal moom moo nekk à une des réseaux sociaux ñu wax leneen daw dem Tamba foofee ca Jolokoto accident bi jotoon a xew ak ki nga xam ne nag mu nekkoon Moustapha Guirassy defoon accident bu métti métti ba far safaram ñàkk ci bakkan ñu koy ñaanal yàlla yaara xare àjjana safar boobu boobu yi nga xam ne moo bokkoon ci li nga xam ne

ñu xamee tegg la ñu xamee ah, ñëw fi pour politique waaye dafay ñëw pour ziar waajal màggalu sëñ Touba boobu moom nag Serigne ay jolori bëri bëri fii ci équipe ah, xam ne jot na def ci football ah, moom nag foofu ci

yóbbu fa ñu indi ci lu nga xam ne leer na nañ comme ni ko yéene kaay bi waxee waaye li ci am ba am mooy jàppale ne ah, ah, moom mandaam jeex na tàkk ah, mbokk yi nag bu leen fàtte benn yoon ne tey si ñaar fukki at ak ñeent la ñuy fàttali ko suñu maam boobee di maam Abdoul Aziz Sy ba mu fi génnee atum 14 septembre 1997 ca dimanche googee nga xam ne asamaan si lëndëm kurus lépp ñit ñi sa ngem maam Abdou borom xob tàppe xol yi nañu juboo te xam ne ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal ñëpp bëggoon ko moom moomee nga xam ne mooy borom 40 ans zéro ah, tey nag la ko Sénégal noonu fàttaliku koo xoolee statut moo nekk ci Facebook bi ah, ñëpp kii nga xam ne ah, ko rek pour rendre hommage suñu maam jooju nga xam ne liggéeyal na umma islamique liggéeyal diine tey nag gis ne moom moomee lañ ñoon yi nga xam ne def na ko ci anniversaire boobu ginnaaw ba mu génnee àdduna mbokk yi nes tuut ñu seetaan vidéo du jour ñëwaat asalaamaaleykum gars yi Fambaye sonn na barki alxuraanu karim Fambaye sonn na interview bu mu def ak waa Seneweb bu ngeen ko déggee ni muy wonkoo ak ni muy noyoo ci micro bi kii sonn na Fambaye ku ne xam na ne mi ngi ci diggante dee ak dund dee ak dund bakkan dafa foor Dakar Buzz may leen ma jàmm ak Ibra moomu ngeen di wane naan dafa ñàkk kayitam ak euh, dafa war a tukkeeg bakkanu fambay bii lanu tal bakkanu ko gën a foor fuuf Fambaye lanu bëgg mu wér jàppale leen ko ngir yàlla ana ñiy pasar pasari seen xaalis bi xew yi ngeen di yàq ay 7 million ah koo xam ne bu la génnewul télé doo maye ana seen xaalis bi ngeen war lan la leen di jariñ def leen effort kii jéem a génn jéem a dem faju ji ngir yàlla ak wayante bi état Sénégal état Sénégal nag fi ma koy woowee naa leen ko wax xam nga Fambaye génn na mu daan ne ah am na docteur yu ko mën a faj itali gratuite te du fay dara loolu dëgg la man mii maa ko dox. ba tey mosuma ko def vidéo ma sama mag moo nekk ci gouver ci mooy liggéey ci commune communauté bi moom laa woo wax ko waxu Fambaye mu wax ak gouvernement bi am ñu ma jege am connaissance man moo ma indi Italie wax ak ministre yi ñu jox ko ay information yu leer ba d'accord na ñoom mën nañ koo faj gratuite yu leer naññ sax kay mais nag dañ koy wutal vol espécial ndax mun ta bokk ak nit ñi vol di voyage loolu rek a manqué ci affaire bi loolu man mii maa ko dox mosumaa toog wax ko woo leen Fambaye téléphone ngeen laaj ko li muy wax ci vidéo bi kan moo ko dox man la musuma toog ba wax ko parce que Wally Seck génn na def na effort man maay doomu ndeyam man tamit faaw ma génn def effort léegi nag buñ amul ba am xoo xamante si nii mënu koo dimbali te yàlla tax pour Fambaye faju beneen solution bi ñu am mooy ministre bi dina bind fooy gouvernement Sénégal fooy buy wane ne moom mooy jël engagement bi moo jël lépp pour pour pour faj ko def ko ci fooy lenn rek lañ soxla ci yow Macky Sall muy nga jox ko visa yaa ngi dégg nga jox ko visa mu mën a génn yaa ngi dégg mën a ñëw parce que am na droit pour ñëw léegi ñaari option yooyu rek am bu ngeen ko mënee dimbali ba nu mën a jël vol dugal ko ci faju bi laaju ñu leen tous dara du ngeen ko dépassé léppam fi muy nekk ak hôtel baak lekk mag naana mag fajoo mag ba nii bay di wéree laaju ñu kenn ñàddërëm man maay wax man boos day néegri laaju ñu kenn tous ñun daal nan am vol rek nan am vol boo xamante si nii mbay dina ci mën a dugg moom kese pour ñëw itali yaa ngi dégg mais lépp sama mag bi lijjanti ko lépp ministre yi wax na lépp confirmé nañ tout loolu man mii maa ko dox musuma toog ba wax ko parce que Wally Seck fu mu defee war naa faa mën a defee ndax sama doomu ndey la ku wedd lii may wax nag woowal faa mbay téléphone woo ko téléphone nga laaj ko li may wax bu baax man duma ma waxant lu ma mas a wax rek dëgg la jàppale leen ko jàppale leen ko mu faju lii mooy wax bi waaw kay merci. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi mais gaay yi lan moo tax man kaa yi may am yëpp Facebook la ñu xamante koo laaj Facebook laa xamanteeg waa ji ah Facebook laa ko xamee moom dafa baax dama koo bëgg moo tax mu def ko daf maa dugg xaalis kaa yëpp Facebook Facebook rek du ngeen katt ndayam ngeen bàyyi Facebook te ku ci def li ngay def nag bu ma la bindee ah nga naan ma yow la kat. ba pare na xolo yow la kan bi bu ma la envoyé say vidéo xam nga lan nga ma ci tegal sa fans laa dama lay seetaan man yow rek laay bëggee yow laay seetaan ba ni may tëddee man sa fans laa dama abonné sa page yëpp boo doon sama fans kay di nga xam kan mooy vocal te man damay wax xam kan mooy Adamo kii Anita la tudd wax naa moom ibaadu la baal yàq deru ibaadu yi ibaadu nan lay jëlee ay weenam di ko bës di jël ween yi di dugal jàpp data bi man ñii wéruñu ah, ah envoyé naa ko message nee na dina dugg xool naa numéro bi ñu ne ma désestelé nañ ko léegi WhatsApp loolu erreur la lay indil vidéo yi bu demee nag jawwa ah, live minuit Sénégal deux di du matin Europe amul yomb mbokk yi jërë ngeen jëf lii leen fi indiloon seen taxaw seetlu di leen sant di leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di leen wax ne leen wooy leen di abonné fii ci Dakar Live TV jërë ngeen jëf